jërë ngeen mbokk yi seen émission Jommet euh, wala bokk euh, ci ngeen bokk dellu seeti na ñu ànd ci ak yéen ni ñu koy defee rek altine bu jot incha allah ñu ànd ceeg euh, imam Babacar Sylla waxtaane ay points yu bëree bëri nag tey daan ci waxtaan ci ay actualité ak lu jëm sax ñoom seen wàll ndax xam ngeen nag réew mi yëpp ak leen di déglu ci wàllum borom ñaari tur yi nga xam ne yanoon nañ combat bi ndax daañu ci am am ci assemblée nationale gën ñu jëm incha allah dinañ ci dikk balaa loolu lépp kër Babacar la ñu bàyyi ko mu nuyoog internautes yi biir réew ak biti réew jërëjëf euh, Serigne Chouaïbou salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu waa ci ngeen bokk yépp mhm. di nuyu groupe euh, euh, solution mhm. nuyu téléspectateurs yi ni topp mhm. ñaanal leen yàlla defal leen jàmm te barkeel liggéey bi incha allah jërëjëf imam di la jaajëfal baax yow tamit ci sa disponibilité vraiment ci taxaw gi nga xam ne yaa ngi koy taxaw diine ba saa suñu la soxlaa lépp lu jëm ci wàllu réew mi rek nga daal di teew balaa ñoo dugg ci point yi ñu bëgg a waxtaanee dinañ ñëw ci euh, Ahmed Khalifa Niass xam ngeen nag dugg na ci wàllu xam-xam hmm. ci Ousmane Sonko mi ngi jógee fii dem ba lew na di julli ci ñëw ne mooy scandale yooyu ñuy tudd naan euh, ak yi mu subaare daf koo laaj ay question Bougane Gueye Dany itamit ay milliards yu bare bare yu ne ci diggante Mansour Faye ak nguuru Sénégal loolu dinañ ci ñëw hmm. mais balaa loolu lépp nag ak euh, suñu question bi ñu fi bàyyee woon dinañ ci hmm. ñëw léegi mais balaa loolu fu ngeen tollu ci seen programme bi ngeen yanu boobu ba léegi bëgg ñu dugal ko assemblée muy borom ñaari tur yi. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Chouaïbou bu ànd sàmm jikko yi. Mhm. ba léegi mi ngi ci lancé bi mu nekkoon te mooy. Mhm. nu fexe nu criminaliser ak ngóor jigéen fii ci réew mi. yéen a ci waaw. am na benn jamono nag nee na tekk. waaw ba ñëpp na waaw seen tekkaaral ji lu ko jur. Mhm. am na sax mbokk mu ñu ci daan wax léegi moom ànd sàmm jikko yi ànd sàmm seen kàddu la bokk. waaw maanaam tëj seen làmmiñ rek na pat <laughs> jàpp seen jàmm. te fekk jàpp nu njaamur ñi ngi dox ci suuf. Uh-huh. mais munoo munoo am ay élection am. Mm-hmm. député yi ko war a def. installé guñu sax nga bëgg a acharné waat seen kaw. waaw loolu mënta ne loolu day niróo. assemblée programme la voilà programme la. Mm-hmm. foog nga déglu leen ba ñu installé wu. Mm-hmm. teg seen i loi teg seen i yëpp après nga door a indi loi bi. bi ñu leen fàttalee tamit bee passé waxoon nañ ne waa yeewi dalaloon nañu. wallu dalaloon nañu. Euh, bokk gis-gis. kadalika mhm. semaine bii ñu génn Benno Bokk Yaakaar dalal nañu. waa Benno waaw waa Benno xam naa bett nañu bare. ah ok ah, mais ci li ngeen jamono yi lépp waaw seen président groupe parlementaire Omar Youm. Mhm. dalal nañu ginnaaw bi mu yëgee ne Babacar defoon na benn lettre di ko fàttaliwaat que loi bi dañ ko bëgg a dugal assemblée. Mhm. parce que li ñu lay laaj mooy ndax yéen pare ngeen pour engager wu porter loi bi benn wa illa bu ñëwee est ce que pare nga pour nga voter ko. wala itam bu dee am nga ci xalaat. loo ci bëgg a yokk mbaa loo ciy wàññi lan la ci. Mm-hmm. Ah dalal nañ joxe na xalaatam wane nañ ne ñoom gis nañ ne lii daal lu baax la. dañoo engagé wu wala dañ ñi rek daañu ko porté. lu baax la moom Omar mais bu sañoon nag ñu gën koo yaatal ba député yëpp jot ci société civile bi ñëpp jot ci mais liggéey boobu moom baal nañ ko ko parce que def nañ ko ba pare <laughs> li ci am solo rek mooy ñun li ñu soxla mooy ñoom ñu engagé wu rek même bu ñu mënul porté loi bi yóbbu ko ñu mën ko voté bu ñëwee. d'accord te am naa yaakaar lii jot a am akas néew moom bu demee dina jàll. Ah. waaw léegi Pape Djibril moo ci desoon Thierno Alassane Pape Djibril war nañu dajeek moom tey bu ànd ak dogalu yàlla. tey tey tey waaw tey tey. incha allah te moom xam nga bokkoon na ci ñi waxoon ne. dana ko voté incha allah parce que signé woon na ko avant muy dem ci élection yi. Mhm. signé woon na ne bu ñëwee assemblée dina ko jàppale. d'accord léegi nag ndax dina mën a porter loi bi mu yóbbu ko wa illaa bu ñëwee mu voté loolu dinañ waxtaan ak bu dee am na ci beneen gis-gis tamit mu wax ko. d'accord loolu incha allah bëgg nañ ko yeggale tey tey. Euh, d'accord xam naa Ablaye Diallo bu dee mi ngi ñuy dégg rek mu ñëw taalal ñu euh, xandal gi. incha mm-hmm. allah du ci wàññi dara. Mm-hmm. Mm-hmm. mais imaam ñii nga ma tuddal nag. xajuñu ci ab loi. déedéet wax dëgg yàlla. léegi nag kon yéen moom am ngeen yaakaar ni moom assemblée bu fa dee day jàll. waaw bii moom gëm naa ne bu demee day jàll ni lettre ci post parce que 83 ah. députés rek bu ñu ko amee mu jàll. mais diggante wàllu. ak ak bokk gis-gis. parce que 83 mm. day taxaw. ak Pape waaw ak Pape Djibril encore. te biir bennoo gëm naa ne am na ñu fa nekk dañ koy voté. Ah, loolu laa ab day jàll. parce que vote bi c'est secret. d'accord da ngay dem voté kenn du xam kan la. yéen mbaa saytu ngeen li ngeen di voté lu imam da ngeen cee boole wala kuy laccax kuy def nii ay baaraam. ah déedéet déedéet xam nga mooy dañ doon wax naa non loolu mooy ko efféminé. koo xam ne day wax baat bi leeb. kooku mu mel ni jigéen ñooñu suñu yoon newu ci. ki nga xam ne day dox. di la xaw a daggu loxo loolu suñu yoon newu ci loolu bind la. Mhm. mais ak ngóor jigéen ñépp a xam daa am ñoo xam ne dañoo gëm góor ak góor takkante di sëy. ñun ñoo ñu tax a jóg. d'accord mais góor gu xaw a efféminé ay cëram mel mel ni cëru jigéen. Mhm. loolu loolu suñu yoon new bu ñu la mënee xelal nag jéem laa corriger nga jubbanti sa doxiin sa waxiin ak yooyu ñu def ko mais loolu taxul a jóg loi bi loi bi li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañu gëm ne góor mën na sëy ak góor. Mhm. jigéen mën na sëy ak. jigéen jigéen ak ñi leen di financé. ak ñi leen di applaudir ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom du ñu góor jigéen mais dañ leen di ñaax pour ñu di ko def. xëy na ñoom am na lu ñu ci am mooy bëgg ak mbon. Mhm. loolu moo ko tax a jóg. waaye li ñu bëgg a gëmloo nit ñi naan woy boo fi gisee nit ku jàdd koñ di damm loxo ñu jàpp la dóor la. Mhm. loi bi loolu lépp daf ko préparé. d'accord loi bi ak ngóor jigéen la wax mu leer mooy LGBT LGBT nag programme la agenda la boo xam ne ñu gëm ne góor ak góor mën nañoo sëy. ba ci ki koy promouvoir ci loi bi la bokk. ah ki koy promouvoir ci la bokk ki koy financé ci la bokk. d'accord ñi leen di tàccu ci la ñu bokk soo gisee droit de l'homme yi xaw a sonn jaaxle tiit ci hmm. ñoom dañoo bokk ci ñiy financé góor jigéen ndax dañoo jàpp ne am na ñu droit ci li ñuy def. d'accord di leen jox xaalis. te loi bi dafa wax ne mbooleem ñi leen di financé dañuy duggaale ci biir sanction yi. Hmm. léegi nag loolu moo tax ñoom seen combat duñ ko duñ ci mës a déggoo góor jigéen. d' accord duñ ci mës a déggoo ànd sàmm jikko yi. d' accord hmm. ba loi la boo xam ne parce que nag assemblée bi defe naa ato ko fi desee baa lu ñuy verrouiller lay doon wala xam nga bu ñu tasee assemblée bi ëllëg ñuy tëggaat ndax seen loi bi dafay continuer nekk wala lii da ngeen koy def pour ñu verrouiller ko. déedéet gis nga loi bi boo ko xasee voté. Hmm. jàll ne léegi xam nga. su ëllëgee ku ko bëgg a dindi. Hmm. foog nga voté waat beneen loi pour nga dindi ko. ah kon doo dootu nekk loo xam ne assemblée bi day tas ñu naan dañuy tëggaat loi bi. non non moom. Hmm. su loi bi xasee dugg ba ñu voté ko te incha allah bëgg nañ ba la ñu um koor mu dugg. incha allah léegi nag bu ñu ko voté ren ci deux mille vingt trois bii avant deux mille vingt quatre parce que deux mille vingt quatre assemblée bi ragal nañ ne mën na soppeeku. Hmm. ko xasee voté. même bu ñu tasee assemblée bi loi bi day continuer. d'accord lu dul ña fa ñëw ne loi bi ñoom. dañ ko bëgg a ñu defar beneen loi pour effacer ko te loolu nag gëm naa ne sénégalais yi duñ ko seetaan sonn lii ay at lañ ci sonn de hmm. ba dugal ko ay nit ñëw abroger loi bi ah loolu nag gëm naa ne ki koy def mooy bu fekkoon nguur la yor sax nguuram ko du taxaw du taxaw waaw ah, parce que yi duñ nangu lool suba day am ay reen yu dëgër waaw ah, day am reen yu dëgër parce que yi ñu bëggul góor jigéen loolu moom lu leer la man gëm naa ne ñi koy def sax bëgguñu ko la leen ci dugal la ñuy régler lan la bon xaalis la chantage la lan la mais góor jigéen jàpp mu ne nit ku baax dana ko bëgg mm-hmm. doon ko mbaa nga gis ku koy doon nga di ko ci topp man dama yaakaar ne loolu am na leneen lu ñu war a xool lan moo leen ci dugal est-ce que xaalis bi d'accord est-ce yi ñu leen def mën nañ koo dékku léegi mm-hmm. mais ñépp xam nañ ne sénégalais bëgg ko dama gis ku mel ni Assane Diouf jógoon na fi attaqué leen mais ba léegi gisuma ngeen def benn réaction te pourtant kàddoom ndaw ci réew mi. mu ni yéen bu ngeen kiyee moom du ko voté parce que yéen nangam. lu tax waxu leen ci ba léegi. Assane waaw xam nga Assane Diouf moom ñun amuñu ak moom affaire daa am ñoo xam ne sooy boo nekkee ci. mais ay influenceur lañu imam dañuy ah. influencer. waaw mais xam nga ne Assane Diouf loi bi fi ñu ko soxlaa ñun. Hmm. nekk fa. loolu bu ko ñeneen waxoon ñoo xam ne ñu nga assemblée. Hmm. dinañu dal. bon am na sax ñeneen ñu bokk ak Assane Diouf ñoo xam ne daana daanaka dal nañ fi sàmm jikko yu baax a baax. mais ñooñu dul sa adversaire waaw Moustapha Diakhaté xam ah, moom kuy topp ay waxam sax. yow sama nijaay nag imaam wax ci ndànk de. non Moustapha Diakhaté dafa am problème. man moom Moustapha Diakhaté ba bi laa pare ci moom. Hmm. man fi yi nga xam ne ñoo koy invité. Hmm. man dama leen a mere. man booba laa gëj a déglu Moustapha Diakhaté fu ma ne nii yem ci vidéo am que hmm. man mënuma gëm nit ku saaga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jox ay plateau ngay wax Moustapha lu luñ ne wax na ko ci àddina ku mu naqareeti yow doo nit parce que ku mën a wax lii yonent bi yow loo waxati nit waratu ko saf moo tax kooku du ku ñuy jox micro muy wax man bi mu ci waxee dama ni kii jarul sax ñu koy tontu parce que mag mu alku la d'accord kooku jarul déglu macha allah jërëjëf imam kon euh, mi ngi noonu danañ ci euh, ñëwaat xool ndax Thierno Alassane Sall moom wax est-ce que dina ko voté lu tax bu ko voté wul la xew lu ne ci ginnaaw loolu itamit ay mbir la daañu ci ñëw mm-hmm. sama ndijaay ngi noonu kii di ko illustré waaye ak lu mu ci mën a doon daal imam jéggal leen ko ndax yéen ay mm-hmm. jéggalaa kon ngeen <laughs> euh, te itamit yéen da ni da ngeen ni da ngeen ni xëcc loolu dëgg nit ku réer sama ndijaay nag dama gëm ni kon nag euh, daawa leen ko ngeen delloosi ko waaye bu leen ko gedd <laughs> ah yaa ngi tuddaat baatu daawa de ah. xam nga keroog yaa ne ma woon moytu leen daawa <laughs> comme nee nañ gars yi dañuy tere daawa uh-huh. waaw Moustapha moom jar naa daawa waaw vraiment waaw man bëgguma ngeen sànni ko daal Moustapha jar na daawa mais ko kenn mënu ko delloosi dëgër na bopp nag mais kenn mënu ko delloosi waaw dëgër na bopp lool eh, yow ku mën dévier waaw xalif général des mourides vraiment kan moo la mën a yow Moustapha Diakhaté yaa ko gisati dem kër Serigne si di ziar du màggal du ziar du lenn. du dem fenn nga gis Moustapha Diakhaté ñu ne ma nga ne di ziar sëriñ bi. doo ko gis déedéet abadan mosuma ko gis ci benn kër euh, kilifa diine voilà xëy na nag ku yabu di ko ñaanal yàlla mm-hmm. parce que loolu njëkkul ci moom mm. lim ci mujj mën na am cat la li nga mm. ci wax ñu nangu ko bu wér mooy yàlla na ko yàlla soppi mais man jàpp naa ne at yii mu am ak lancé bii mu bëgg a jël du yoonam du yoonam magum jëm romb juróom benn fukki at mm-hmm. te yow lépp luñ ne lu baax la contraire bi ngay def vraiment c'est grave nit ku baax nga nga contre loolu moom cat hmm. dëgg la. Ah, d'accord yàlla na ko ci yàlla génne. <laughs> amin incha allah amin amin jërëjëf imam léegi nag bala ñooy ñëw ci Ousmane Sonko moom it mi layi layi ba lew na di julli ji hmm. jumaa hmm. dinañ ci ñëw ak atay Ahmed Khalifa Niass wax ñëwit ci président Sall ak scandale yi ñu koy ji ñi euh, mi ngi ci ak nguuram waaye balaa loolu keroog dañoo wax ci sàcc ay waaw ñu bari nag woo nañ ma nee nañ ma kat wax dëgg yàlla xamuñu ni woon nii nga ko waxee noonu la deme am na ku ni ma sax man de wax dëgg yàlla daanaa bàyyi ba heure sàngam ma jaar ci soxna si mu defaral ma ataaye ndax comme dafa man ataaye ma ataaye nelaw ba yenn heure yi ma dem ñibbi nee xamul woon ne loolu sàcc ay la. dëgg la pour moom jabaram la leew na ko. ndeysaan léegi nag ki ci nekkoon ba yàlla dogal ci loolu mu am ci doom. Mhm. attee doom jooju lañu bëgg tey nga ñëw ci. waaw jërëjëf Chouaïbou man mii sax amaat naa ci ay écho nag wax dëgg yàlla ñoo xam ne xëy na mhm. jàppuñu woon na sax lu aay la. Mhm. Euh, mais nañ ci bàyyi xel. li war a xam rek mooy ay gi yow góor gi moomoo ko ba fu la noppaloo. Mhm. ay gi ndaw si moo ko moom mu ngi mel ni ñu toog di def émission nii ba ci yàgg ma bëgg dagg sa émission di defi leneen loolu mënul nekk parce que heure bi heure bii moomatuma ko man tant que émission bi jeexul dégg naa dëgg mais boo ko daggee danga nga yëg ne euh, tooñ nga ki nga xam ne moo la joxoon heure émission nga war ko def dégg naa dëgg léegi nag comme ndaw si moo ko moom soo ko jëlee jox ko nawleem mhm. boo xam ne ñoo bokk benn wàccuwaay ci yow surtout boo nëbbatoo mooy tax mu tudd sàcc mhm. mën nga ko forcer boo ko forcer moo gën a garaaw léegi nag ki def loolu mooy na yàlla li alquran doon wax ni mii fala tamilu may mayli loolu moo ko daal moom mooy dafa jeng ba daanu loolu nag boo ko defee non seulement am nga bàkkaar mooy nga yàlla mooy nga yonent bi mais dafay amaat sanction yu ci topp yu bokk ak mooy gi bala maa ñëw ci doom ci hmm. waaw ginnaaw bi ñu la bindalee bàkkaar dafa am ay sanction am na sanction de waaw am na sanction bi ci njëkk ginnaaw bi ñu la bindalee bàkkaaru mooy yàlla hmm. yow ci boppam mëtatoo imaam ki sàcc ay waaw ah, bu dee imaam la woon hmm. day wàcc hmm? matatul seede yërëm naa asan waaw matatul seede de hmm? asan mesere wallaay buñ doon takk sëy du bokk ci ñiy seede mbaa sëy bu mu seede du wér kii sàcc ay kii sàcc ay buñ doon leblante xaalis ñuy wut seede moom du mën a nekk seede ou bu seedee seede ba du wér kii sàcc ay kii sàcc ay dootul mat imaam dootul mat euh, seede seede mhm. lépp lu ñuy jëmmal ñu war ko def ci kilifteef war a maye war a nàngam dañ ko ci génne parce que dañ daan ko yow moom mandootoo mhm. ndax da jéng ba tëdd doom ji juddoo nag moom la ñenn ci boroom xam-xam yoo wax ne moom la ñuy tuddee doomu xaraam mooy doomu xaraam waaw yow dangaa def lu xaraam ah. nga gis bu ñu daan xasan daan lay yow doomu xaraam ah, nga doomu xaraam nga loolu bokk la doomu njaaloo doomu njaaloo mooy ku judduwul ci buumu sëy Hmm. mais kii ci biir buum gi la juddu donte baay bi dafa tooñ nawle soxna si dem ànd kële ba am ca doom ci loo xam ne ay la ñu ne ko def nga lu xaraam. kon doom ca doom jam ca am. waaw ñu ne ko yow doom ji doom ju xaraam nga ndax sa baay dafa def lu xaraam. Ah. mais loolu nag amul lien ak mu nekk doomu njaaloo. c'est dégg naa la. bu donn jotee dina donn mhm. mën na donn baay baayam da koy donn. amul benn àq bu mu koy xañ ci li ko lislaam di may diggante baay ak doom lu dul rek lu xaraam li baayam def mooy daam mooy yàlla ba mu juddu ci te mooy yàlla googu du mooy yàlla ak njaaloo nag ndax kii muy àndal mu ngi ci biir bu mu sëyam mhm. xam nga gis nga laaj bi fi gars yi daan def kii ki takkoon jabar te xamu ko woon ñoom ñaar ñu dajee ci benn hôtel que ñu njaaloo ba pare ñu di ki fekkaat jabaram la mhm. mais loolu njaaloo loolu du njaaloo ah parce que ci biir buumam la amee doom waaye intention yi moo doy waar intention bi nag voilà intention bi daal moom yéenee njaaloo la amoon mhm. yàllaa ko wallu mu yem ci jabaram mais moom njaaloo ji la buggoon mhm. yàlla yemale ko ci jabaram du am àtteewu ku ku duñ ko àtte àtte ku amul yéene njaaloo non non duñ ko àtte àtte mhm. ku waaw am yéene njaaloo te njaaloo woo duñ la ko sanctionné ah duñ la d'accord loolu ci xeetu yonent bi d'accord yéene def lu ñaaw te mujjoo ko def duñ la ko bindal tey buñ tegoon fiit maag yow ñu toog nga teg sa téléphone ma xool ba xam ne kenn xoolu ma ma yuuti di sàcc sa téléphone rek sama téléphone laa jël def sama poos dem hmm. ma dem ba ci biti ma làmb gis ne ndek sama téléphone laa jëlaat <laughs> xam naa li nga wax ta dama yéene woon sàcc sa téléphone mais dafa rate fekk sa téléphone jël jeex na du tax ñu bindal ma ci bàkkaar mais bu ma sàccoon sa téléphone ñu bindal ma bàkkaar mais sama yéene moo doon ma sàcc téléphone bi mais rate na dégg naa kooku du tax ñu bindal ma ci bàkkaar la même chose que ki nga xam ne dafa takk jabar te xamu ko mm-hmm. ñu dajee feneen ñoom ñaar ñu tëdd mm. après mu feeñ que ne jabaram la. Mhm. ah su boobaa du am benn sanction wu njaaloo. mais nag ñoom ñaar dey bu ñu wóolanteetee dana ma jaaxal de. d'accord ah. macha allah kon daal léegi ki sàccug ay. am ca doom. na jàpp doom ja dam ci am doomu xaram la xaram la def na bàkkaar sanction yi mooy bu doon imaam la dañ naan ko yow bu ñuy jiital koñ bi bu ñuy tànn imaamu juma mën a too cee bokk bu ñuy seede sëy doo ci bokk bu nuy seede bor doo ci bokk lépp lu lislaam di laaj ci seede pour mu taxaw yow mënatoo bokk ci seede yooyu. ah gars yi dañ naan ku gën ci man ma gën ci yow. waaw mais loolu dafa am limite. waxoon naa ko mooy ci côté financement. <laughs> mais ay gi moom. Ah. ay gi moom ndaw see ko moom. allah ah, waaw ay gi moom ndaw see ko moom. kon mi ngi noonu imaam euh, lii lu mat a bàyyi xel la yéen itamit yéen mbokk yi di ngeen am possibilité dina am ay euh, fenêtre bu ñu leen ubbil boo xam ne. du mm-hmm. ñàkk am ñu am ay seen question yu lënt. Mm-hmm, mm-hmm. ndax nag lii euh, boo fàttali ko ba may yor groupe whatsapp sëñ Maguette Fall. wallaay daanaa jóge caaray ba sa kër. di laaj si ay ay ay masala. effectivement macha allah kon nag léegi am ngeen possibilité yéen ñiy seetaan. dinaan daañu leen ubbil fenêtre boo xam ne ku ci am rek dañuy jox laaj boo xam ne chaque émission ñu jël ci benn daaj la ko. Mhm. Euh, jërëjëf kon Imaam. Mhm. bala ñoo ñëw ci Ahmed Khalifa Niass. Mhm. ñu ñëw ci scandale bi nga xam ni xaw ma question la xaw ma aji bu day ruube xaw ma. ndax 7 milliards yi muy laaj président Sall ndax joxoo ko ab yóbbal Marie Le Pen yow bi nga déggee loolu oustaz da nga cee defu jàngal wala nga jàpp ne aji bu day day ruube. waaw jàpp ma ne day ruube ndax bi ma ko gisee dama ne lii dafa normal ñu tontu ko. ñu tontu ko waaw laajte na xam ne du moom doo nga ko wax am na ñeneen ñu ko bind di ruumandaat ka ne euh, Marie Le Pen bokk ci ñuy yuutu pour nekk président wu France bokk ci ñi nga xam ni dañoo rasiste bëggul nit ku ñuul Marie waaw Marie Le Pen moom du bu baax man de yàlla bu mu jiite France laay ñaan ah ndax moom dafa affiché wu ne moom bëggul nit ku ñuul xam naa moo président Tunisie bi mën nañu ànd <laughs> nga xam ne ñu ngay lakkal nit ñu ñuul ñu mais Marie Le Pen ñëw na Sénégal ci ñëw boo xam ne ñëw bu discret la benn. Mhm. mu delluwaat ci dellu bu discret. Hadjibou Soumaré def ay révélation ne dégg na ñu naan. Mhm. président jox na ko valeur u sept milliards muy laaj président ne ko ndax loolu am na su dee am na lan moo tax. Mhm. mais am na ñu ma gis ñu koy ŋàññi ci laaj boobu mais agibu Soumaré li mu def man jàpp naa ne Sénégal yëpp la ko defal. te dafa mérito ñu tontu ko parce que Hadjibou Soumaré du benn waay buy taxawal ci mbedd mi de. nit ku ah. sérieux la. homme politique la dëgg la. Ah. mais xam ngeen ne homme politique bu sérieux la. Hadjibou ah. Soumaré doo ko dégg ci ay détails. dëgg la ba ñu paree ci nguur gi ba léegi dafa mel ni ko effacé wu. si li tax lii mu mën ci duut baaraam ne na leer. Hmm. mooy am na lu mu gis. ah ma jàpp ndey ruube. ah non loolu du non Hadjibou du koy ruube. léegi 7 milliards fan la ko président di jëlee ak fi di ko joxe rawatina candidat bu nekk France xam ni kii wax ko léegi dafa affiché wu que ni mu buggul der bu ñuul waaw nag dafa laaj mais comme dafa laaj daa méngoo ñu tontu ko xam nga ñun choix bi suñu problème mooy malheureusement ñun suñu gouvernants yi dañ ñu nawloowul. Hmm. mais kiy laajte li muy laaj alalam la. waaw sénégalais yi tey dañu am sañ-sañu laaj président Macky Sall xaalis bi fan la jógee est-ce que am na wala amul parce que seen alal la mais ñun dañuy réer naan la way maandul mais maandu ci loo moomul mais li nga moom yow. ñun hmm. yi ñoo moom alal ji. Hmm. mi ngi mel ni bu yow nga dénk ma xaalis. waaw dénk ma boutique bii. Hmm. nga xëy gis may saax saaxee alal mais amoo sañ-sañ ñëw ne waa imam yow li ma la dénk fan la tool ak nu mu demee. soo ma ko xamal non choix bu maandu. <laughs> maandu ci sa alal yow li nga moom. vraiment yi question yi ñuy laajte ñoo ko moom. képp kuy gouverner fii ministre nga député nga président nga maire nga loo mën a doon sénégalais yi dañu am sañ-sañu xëy dégg dara lu leerul ci li ñu la dénk ñu ñu bind ne li mi diw sàngam dégg nañu nangam ak nangam ci alal ji nu mu demee nga bind ne loolu am na wala amul c'est très facile su fekkee li mu wax amul mais nañ ko tontu. mais loolu boo ko laajee fii boo laajee sama boutique bii ma la jox dañ lay tëj teg tëj ci kaso bi de. waaw parce dañ la ki nga dénk boutique bi waaw te yow sa alal nga ko dee. waaw yaa dégg nga waaw loolu. loolu c'est catastrophique ñun gis nañ fi temps wu Ablaye Wade. waaw borom maletu xaalis ba damay fàtte xaw ma Ségura la woon. xaw ma waaw Alexis Ségura. waaw Alexis Ségura. Mm-hmm. mais Ablaye daf ko joxoon 500 millions loolu juróon fi coow loo xam ne ba ba dañoo mujj delloo xaalis bi. mais bi mu koy jox kenn yëgu ko. Mm-hmm. mais question yu mu posé woon. boobu nag presse baa ngi nekk presse. Mm-hmm. waaw boobu presse bi. mu ngi nekk presse boobu presse bi moom vraiment na ma yàlla baal bokkul ak presse alimentaire bi am léegi. boobu presse bi ñoo porté woon combat bi. Mhm. malheureusement tey lii ak yi bu wax bu ko waxoon ci guddi bët set. Mhm. investigateurs yëpp dañ investigateurs yëpp dañu waroon a jóg. Mhm. gëstu ji li mu wax. Ah. parce que léegi changement bu xew man daal journaliste yi luy seen liggéey man jaaxal na ma na ma ah, yàlla jégal. journaliste yi kat ku ci wax léegi ñu ñu tëj la. Pam Ndiaye ngi ni mi ci kaso bi. waaw gis nga rek Pape Alé génn barki démb. waaw te moom nee nañ ko limite nee nañ ko lii bu yamate bu léegi fooy waxee. waa mais nag investigation seen métier la mu ngi mel ni ab docteur nga ne ko doo faj. d'accord investigation métier journaliste la ñoom heure bu ñu gisee ay indice hmm. dañu war a jël seen pilim gëstu ji est-ce que lii am na wala amul luñ ci xam ñu ñëw binduñu ñu ko mais dañuy toog léegi ay homme politique ñooy def ay révélation hmm. ñu ngi tudd Bougane dinañ ci ñëw léegi. waaw bu ñu defee révélation bi ni mu ko waxee noonu la ko journal bi kuppatee tegaat ko ni diw nee na nangam daal di jël dëgg la non journaliste bi loolu du. ah dañoo war a xóotal mbir dañuy xootal moom bu joxee ay indice rek yow da ngay topp yoon yooyu gëstu ji ba xam lii am na wala amul mais malheureusement dañuy xëy toog seen plateau boo waxee ñu jottale ko ah diw de moo ko wax non non loolu du rôle journaliste. kon daal weddi woo Agibou ci li mu laaj. non non man dama d'accord ak moom. Mm. parce que président Macky Sall nag changement bi mooy ñett yoon xaw ma ñaari yoon ñu di ko laaj ay milliards. yaa ngi fàttali 7 milliards u Taïwan. Taïwan boobu Idrissa Seck mii moo laajoon. na ko loolu ba léegi amuñ ci bi mu toogee def déclaration patrimoine dañ ne am na huit milliards gars yi naan fu mu ko jëlee. waaw loolu amul réponse nee naa nee na woon am na loo xam ne Ablaye Wade doog moom. <laughs> Ablaye Wade moom après li wax ñëpp ko moom rek ko ko sañ. yàlla mooy fan waaye sañ na trop. beneen bi ci des mooy. Mhm. bii mu mujjee génn. mais nañ tontu dafa laaj est-ce que am na wala amul su dee am na lan moo tax. Mhm. mais nee ko amul mu jeex. est-ce que lebaluñ ko nga ne ko am na mais tollul noonu. nii la toll parce que ñiy laaj seen alal la ñuy laajte. te dañ ko koo lebal. te dañ ko koo lebal voilà mais wax dëgg yàlla man jàpp naa ne fi ñu bëgg a yegg ba nit ñi li ñu leen dénk amatuñu sañ-sañu wax ci loolu nekkatul république. loolu moom affaire royaume la. ab buur dong moo sañ a toog ne kenn du ko laaj ni ngay financé mais président. Mhm. président dañ ko waral a laaj liñ la dénk nu mu demee muy def ay tontoom. député bi dañ ko ko war a laaj maire bi mais léegi kenn sañul laaj lool. waaw dëgg la te boo enfoncé waxal sa bopp ñu ne ah diffamation ngay def. waaw xaaral yow léegi xaaral ñu yónnee la citation nga dëggal li nga wax wala déet. te agi bi sax bul dem ba ba ba ba ba jàpp ni du ñu xëy indil ko ay dossier xam nga ah. Sénégal fii moom boo waxee di kilifa rek. du ma bett na léegi ñu génne la dossier. du ma bett ñu xëy bul fàtte ni yoroon na fi normal ah. ma bett ñu xëy ñu ne agi bu ñu ngi koy tudd ci scandale sangam sangam sangam xam nga nag day dem ba après day soof. Mhm. dee ku wax lu wuuteeg lu gouvernement bi bëgg rek. ñu créer la ab dossier teg. Mhm. pour wan nit ñi ne leen kii di wax moom sax setul c'est-à-dire yow dindi woo li mu wax de danga bëgg a wan ne moom gënuñoo set. waaw mooy mi ngi wax ne dañoo sàcc mais moom tamit sàcc la mais loolu du lay wi. Ah, li muy wax amul loolu ngay fexee far farba loolu la waxoon mi mi. voilà daan moom mii daana ñëw ma di ko jox muy jox bu weddee na wax. Oh, waxoon na ko ci Thierno Alassane Sall. waaw waaw kon mooy wane ni yéen ñii di wax kat jubu leen. waaw comme ñun mais wax jooju dafa garaw non mais nattuñu wax gravité wax ji ba pare ne ko boo juboon. waaw li ma la doon jox doo ko jël. waaw kon lim ko xam nga mën kon lim ko doon jox moo jubul. Ah. baat booboo garaaw nag yow boo juboon loolu ma la doon jox doo ko jël kon mu ko doon jox moo jubul. Ah, ngay jaay jub jublu. voilà mais Farba dugal boppam. mais ba léegi loolu après bàyyi nañ mu jàll noonu. mu jeex man nee naa woon lii procureur dina woo Farba ñu ne. noonu ah, ko laa jot jàppoon naa ne procureur moom minimum bon dana auto-saisir ne ko ba nu mu de waxuñ ko mu tëj ko na ko laaj waaw ne ko xaalis bi ngeen doon joxante lan la. fan la jógee fan la jógee est-ce que xaalisu askan wi la parce que moom nag procureur de la république ñu wax moom république bi la fi nekkal. Mhm. ñuy saytu seeni alal képp ku ci laale am na sañ-sañu auto saisiru laaj la nu mu demee bu leeree ci bopp mu bàyyi la nga dem. d' accord mais kenn du ko woo. d' accord loolu nag ci am réew mu normal loolu c' est pas bon. macha mm-hmm. ci coowal xaalis loolu la ñuy des ba léegi euh, muy Bougane Gueye Dany moom tamit gis nañ ko mu def ab révélation mm-hmm. yàgg na sax tudd ay immeuble ak ay nangam ak sàng mais bii moom dafa mm-hmm. tudd ab somme di ko laaj daal Mansour fay ci ay xaalis boo xam ne yëgoon nañu fu mu génnee mais yëguñu fu mu dem ak leeraluñ ci dara loolu bi nga ko gisee dafa am ay jàngat yoo ci def wala da nga jàpp ne ba léegi Bougane dafa bëgg a defar defar euh, statut politique am. Hmm. wala da nga jàpp ne moom tamit day scandale scandale rek maanaam di wóor-wóorlu. waaw pour ñu wane ne mi ngi ci biir. Ah. non man jàpp ma loolu man dama jàpp ne bokk na ci lii état bi réussir. Hmm. waaw bon pas état bi gouvernement bi moo gën a xat. Hmm. gouvernement bokk na ci li mu réussir. mooy mu mooy mu fexe ba scandale yi am. ay hommes politiques ñoo koy révélé. loolu lay bëgg. Ah. ah oui. ñoom bu ñu ko waxee. Hmm. day am couleur politique. Ah, <laughs> d' accord dégg naa la. xam nga journaliste bi neutre. société civile bi neutre. waaw Birahim Seck bu wax benn scandale. waaw bokkul ni ko gars yi di téye du bokk bu ko Bougane waxee wala Sonko ah, wax. dañ naan ndax da koy dam dam rek loolu fexe nañ ba journaliste yi nangootuñoo wax benn scandale. yaa ma daan wax ni ma ku bëgg a rey sa xaj. da koy jiñ ko ne dafa say jeex na. boo koy rey kenn du wax. kenn du wax parce que dañ naan ñun ñëpp lay lekk. loolu la loolu mooy dëgg. léegi fexe nañ ba. homme politique bu révélé ñu ne ah kii de wujju Macky Sall la rek <laughs> mais Bougane même bu nekkee wujju Macky Sall bu révélé loo xam ne dafa yitteel askan wi mais loolu dañ ko war a topp ñu xool est-ce que wax na dëgg wala waxul dëgg. Mhm. ba pare da leen a lancé défi de moom am na ay preuve ga mais dafa laaj Mansour ne ko leeralal man dama jàpp ne Mansour walu woon tëdd ci lal te leeralul mais sooy bu am na yoo xam ne boo leen ko waxee tey ci suba su ñu tontu la. waaw dëgg la koo ne ci bon Bougane bu waxoon ne. Mansour fay gis naa ko muy dil ak euh, Ousmane Sonko. bu ko ci ngoon. bu ngoon muy def conférence de presse. da laa tudd mu tontu ko. waaw ah, léegi lu tax bu nekkee scandale duñ la tontu. Hmm. am na yoo xam ne dañ ciy tontu facilement mu leer. am yoo xam ne bu ñëwee mu leer ci askan wi la jëm duñ ci tontu mais Bougane li mu wax ne aw xaalis bu état bi leb <coughs> mu war a ñëw dugg ci keesu nguur gi mu dugg ci keesu privé. waaw mais loolu dafa garaaw de loolu mooy jaawale sa poos ak poosu li ñëpp bokk. mais imam loolu dafa bari de ak milliards li ñu wax ni moom la ci nit man te léegi scandale dafa nekk loo xam ne léegi Sénégal yi faaleetuñ ko soxla léegi boo naan sàcc nañ milliards dañ naan ah rek avancé te sàcc benn dërëm dafa garaaw rawatina sàcc ay milliards askan. Mhm. léegi nag comme moom tegal nañ ko ay laaj wax ko ay banque wax ko ay somme mais na génn tontu ci na wax ne Bougane li mu wax ah, pas que keneen di ko tontul dégg naa ñeneen ñu ngi non non non mm-hmm. Mansour Faye la cité. Mm-hmm. Mansour mën naa tontul boppam. wala mu yóbbu ko ci yow. moo fi waxoon Babacar Fall boo ko waxaatee ma porté plainte. Ah, waaw mais Mansour moo nekk nii ba léegi. Mansour bu nekkee goro président de la République ñu koy tudd ci lii tuddaat ko ci Covid tuddaat ko ci leneen. vraiment dafa war a leeral position. yi mm-hmm. nag euh, man jàpp naa ne nii ñu ko bëgg a bàyyee nii mu yomb. lii ah en tout cas réew mu sérieux warul doxee nii ñaareel bi ci des. ñi leen di wuutu. su fekkee leeraluñu lii moom Sénégal ku yebu ñu saam ko ku nekk jël sa wàll ñu dem. Hmm. Ah, oh, mais mooy tax bu ëllëgee keneen ku ñëw toog da nga naan mais ñi jëloon mujjul fen d'accord képp koo gis ñu woolu ko jam ko baaraamu tuuma nekkul ci nguur gi. mësuma gis kenn ku ñu tuumaal ci nguur gi ñu woolu la. waaw musulam ci xaalis mosul musulam. musulam mais bu doon opposition nga bokk ñu woolu la. Khalifa Sall li ñu ko wooloo wooloo ko Karim Wade lu nu mel tuumaal nañ ko ñu bare ñu ne ci nguur gi kenn wooluwu dëgg la tuumaal nañ ko Alioune Sall tuumaal nañ ko Mansour Faye mm-hmm. tuumaal nañ ko waa ji nekkoon fële ca Thiès te jiite woon euh, poste Siré Dia mm-hmm. tuumaal nañ ko Cheikh Oumar Anne tuumaal nañ ko ñu dul jeex mais ñooñu ñooy toogal seen bopp ci palaatoo ne amul mu jeex non du am benn du am si demal ci procureur nga leerale ko foofu dafa lay yam toog rek ne non li muy wax nii amul. te ñu koy wax duñu ay nit yu ordinaire ay nit yu xam lañu. yu xam di ay gëstukat bugaan nag loo ko mën a waxal gëstukat la. Mm-hmm. nit la du ma wax ne du juum de. Mm-hmm. nit la mais journaliste la. Mm-hmm. day gëstu am na fu ñuy amee information. la muy wax même bu dul cent pour cent mais am na cinquante pour cent yu mu ci xam. loola nañ ko leeral rek sénégalais yi ñu xam ne seen alal fii la dugg foog ñu bàyyi xel ne ñi nu dénk dañ leen a dénk li leen dénk moomuñu ko. Mhm. dañu am sañ-sañu di laaj lii ñu leen dénk fan la toll ñu naan ñu fii la toll mais ñoom dañ lay dépassé quoi di la wan ne bon nawloo wuñ la amoo loolu ñuy laaj. Mhm. amul lenn lu ñu lay rendre mais yow boo rendre compte peuple bi kan ngay rendre compte. vraiment ah bu ñu rendre compte fii. Hmm. danañu rendre compte fële de. incha allahu taala dafa sori imam waaw sori na de. waaye nag am na gaa yu bari yu gëmul ni ëllëg am na. waaw ndax man lii ma gis ci réew mi bu ñu gëmoon ni ëllëg am na duñ ko def de. loolu moom dëgg la waaye dina am nag. Ah. ñoom seenu ñàkk gëm du ko teree nekk de. ñàkk gëm ne alaaxira amul du tere mu am te wallaahi waxuma alaaxira mais ku ci wàcc nguur gi rek réccu ko benn xaalis ba du barkeel ñaareel ba dina nekk poson ci sa yaram ay feebar dong la leen di jural mhm. ñetteel ba boo duggee bàmmeel dërëm bu ne ñu war la ko topp sénégalais bu nekk nga war ko fay sept milliards kenn quatre-vingt-dix-huit milliards quatre-vingt-dix-huit milliards allahu akbar te benn milliard rek niñ ko xaymaa imam benn milliard rek lekk ko sax dafa të mën nga cee tabax man nga cee dund dundal ci say mbokk benn milliard. fonctionnaire moom mënul nekk milliardaire loolu moom ñëpp xam nañ ko parce que fonctionnaire dañ koo limité. sa am dégg naa seen xajma bi ñu ko waxee ñaan ci dana du ma ci ñaan parce que wërsëg ngeen ko jàppee te du wërsëg. waaw lii ñu ne limité ne li ngay am par weer boo ci yemee mënoo nekk milliardaire. te fonctionnaire yaa ngi nekk milliardaire. waaw man jàpp ma ni kenn ci ñoom dinay fayeeku deux wala trois millions par par mois. non ministre moom ay trois millions. même bu doon fayeeku cinq millions mais trois millions imam mënuñu ci investir lii lekk. di ci naan di ci tukki di ci fay njàng di ci faju di ci bëgg cee épargne ah, di ci maye. di ci maye te xam nga ay politiciens moom boo dul maye fii Sénégal. Mhm. xamal ne doo am nit parce que sénégalais yi dañ jàpp ne xaalis bi nga yor danga ko war a séddoog ñoom pour ñoom ñu mën la topp. d'accord moo tax fonctionnaire mënul nekk milliardaire lu dul mu yoroon ay entreprise avant muy nekk fonctionnaire. Mhm. te loolu boo nekkee fonctionnaire dañ lay xaw a dawal yooyu parce que dañuy bañ mu am ay. Euh, euh, xawma nu ñu koy waxee ti mhm. nga mën a tibbee ci nguur gi di mën a dugal ci sa société privée ah, foog nga démissionné fële pour nga mën a xam naa yeggali fii ak yu mel noonu voilà moo tax ñaari liggéey yooyu ctt doy na war ah, euh, jërëjëf imam ci euh, lu am solo loolu nga xam ni wax dëgg yàlla leer la nag parce que bu ñu xoolee li ngay gañe ak oto yi ngay jënd kër yi ngay maye xaalis bi ngay joxe bi ngay tibri sànni gauche à droite fi ngay sa voyage wax dëgg yàlla salaire cinq millions sax mënul lool. mënut a dix laa def mënul laa def un milliardaire. dix millions mënul def milliardaire ñoom ñoo ko gën a xam léegi nag ku ci yaakaar ne sax ci alal moom mooy tax yow nga nekk nit ku ñu naw man gëm naa ne ñii ñëwaat dinañ ko régler incha allah waaye bu ñu ko réglé wul. Hmm. wallaahi ma ne ku ci wéet doo nelaw te di nga ko réccu te boo waxalee yàlla yaa ngi feebar yoo xam ne. ba mm. yowmal xiyaam doo taxalikook moom. wax nga dëgg de. te ku dekki dinga nga fay sénégalais yi sénégalais bu nekk som bi nga jël loolu nga koy fay au nga fay ñu ñun nga di ñu séddale sept milliards mm-hmm. ku nekk sept milliards nga koy fay. ok voilà. Euh, bala ñoo dem ci amee Khalifa Niass. mosal ñu tuuti ci Omar ibn Abdul. wallaahi ndeysaan ku maandu kàngoog. man damay wax ne. Mm-hmm. dañu waroon a supprimer euh, mm-hmm. ak La Prince. ñu samp Abdul Aziz euh, mhm. Abdullah Omar ibnu Abdul Aziz mhm. parce que Machiavel bi ñuy jàngal nga xam ne prise képp ku bëgg a nekk président danañ la jox la prince mhm. nga ñu ko liir ndax dafa jàngale ni ñuy gouverner te Machiavel ab saay-saay ndax dafa jàngale ci gouverner noo xam ne dawul sàcc dawul fen dawul wor dawul rey nit bu ko laajee dawul tuur deret bu ko laajee moom nee na nguur lu mu laaj da nga koy def cest lii ku ko jàng nekk ci gouvernant pour nga rey nit mbaa nga sàcc alal du dara ci yow. Mm-hmm. Omar bun Abdul Aziz Chouaib bu dañ ko dénk benn dëkk bu tudd Misra. Mm-hmm. bi muy ñëw ci dëkk ba dëkk bi dafa ndóol deux ans la jiite dëkk ba kenn amul koy jox asaka ci Misra ñaari at. est-ce que waxuma cinq ans de. fii mm-hmm. ngay fal nit cinq falaat ko cinq mu naan daal leen ma ma defaat beneen pour ma mottali deux ans la yore dëkk ba. dëkk bi kuy joxe azaka da ngay takki giléem dem seeti foo joxe ji azaka parce que ab faqiir amatul ci dëkk bi ndax maandu teem mhm. te xam nga euh, Erdogan waxoon na lu mel noonu mhm. bi ñu ko laajee yow noo def ba réussite alal ji nga réussite ba finance mu ne ñi doon sàcc laa téye seen loxo <laughs> kenn sàccutu mais Sénégal fii li ñu fiy sàcc ci ay milliards ku téye woon seen loxo rek réew mi dem dëgg la Omar Boun Abdul Aziz nag bunt yooyu la njëkk a tëj mhm. keroog bi ñu ko falee dafa dajale famille wam yépp ne leen dëkk bi sas nañ ñu de du ñu gën a gore dénk nañ ñu li ñëpp bokk dama bëgg train de vie bi ñu amoon ñu dindi ko yëre yu rafet yi mu amoon Omar ibn Abdul Aziz sañsekat la woon ñëpp daan wax ne dafa bëgg àddina mu dajale yëreem yëpp mayee ko dese benn tenue ne rus naa sañse ci kanamu ñi ko yaakaar di xiif di mar moom muy sañse seen kanam di jaabaka dikk xam kooku du dawal ay oto un milliard dëgg la woo famille soxna yi jigéenam yi ne leen nag xanjaw xanjaw jeeg takkaay yeeg yëre yu cher yi da ngeen koy arrêté parce que ñii yaakaar dañoo sonn te foog ñu satisfaire leen seen col gi na wàññeeku mhm. dundin wi na wàññeeku wa illaa ku ma ci gis ñu fal la nga dund dundin wu ëpp nii nga yore danaa la audité nangu alal ji danaa ko def ci li ñëpp bokkuñu ñu moom mhm. loolu la ñuy xaw a méngale tuuti cre yi te bokkuñu dinañ ci ñëwaat ci leeral gi bi mu commencé def noonu teneem bi bu tilimee guddi la koy soxna si di fóot mhm. su xëyee solaat ko maandu gi mu tëral nee nañu dañoo dem ba gis ni bëy ak till dañ leen di fekk ci benn àll ñoom ñaar ñu sëgg di lekk te kenn du fàdd sa moroom est-ce bi ñu laajee sàmm bi lii lan la mu ne ki jiite réew mi maandu moo wàcc ci mbindeefu yàlla yi moo lay wan ne aw nit boo leen jiitee say jikko ak say melo day wàcc ci ñoom mhm. soo baaxee da nga leen baaxal boo safaanoo safaan googu dina wàcc ci ñoom mhm. jeexantalu Omar bun Abdul Aziz dafa wàcc ci nit ñi wàcc ci bàyyi may mhm. benn gouverneur woo ko ne ko dëkk bi nga ma dénk insécurité bi def yu bari ma bëggoon benn budget rek pour ma financer wàllu sécurité mëna ko dërëm du ma la ko jox ñoŋalal dëkk bi ci maandute da nga tàmbalee ko sa bopp da nga sant ña fa nekk ñu maandu ku tooñ teg ko ci yoon nga jël ki ñu tooñ nga delloo ko àqam ki tooñ nga sanctionné ko boo ko defee diir bu néew dëkk ba cocc lay def te bi mu ko defee dëkk ba cocc la def cest à ay jikko mooy yor da nga yar sa peuple daal te loolu deux ans la ko def mhm. mu réussite ko ñu ne cinq ans matul mhm. kon man damay ñaan ñu roy Omar ibn Abdul Aziz mhm. làmp yi mu yoroon këram làmp pétrole yi bu liggéeyee ci nguur gi ba li muy liggéey jeex boo ko seetsee di ganam. Mhm. ngeen waxtaan ba dugg ci famille mu ne xaar xaar nga xaar ko mu fay lampe bi mu yoroon taal lampam ne la ah léegi kan ñu ci sunu soxla bopp te lii jullit yee ko moom. d'accord mënuñ ko utiliser ci suñu bopp sooy bu kuy daw di taal courant wu li ñëpp bokk ngir sa soxla bopp xam nga kooku du lekk alalu askan. d'accord ñooñu la gouvernants yi war a roy. d'accord kooku mooy. royukaay bu mag bi macha allah boo ne woon yonent dañ naan bon kooku yonent la kenn mënu ko rey mais Omar ibn Abdul Aziz mm-hmm. du yonent du saxaaba toppul sax ci saxaaba yi eh, daanaka yonent magee na ko lu ëpp un siècle waaw kon kon mënees na koo roy. voilà wallaay. ayca jërëjëf imam ñu ngi may euh, sax signaler ni ma jeexal naa. Ah, tàkk tàkk ah. mais comme point euh, Ahmed Khalifa Niass da cee mm-hmm. bokk. mënuñu ko ñàkk euh, dugalaale bala ñoo tàggoo. Mm-hmm, Ahmed Khalifa Niass. Euh, nee na Ousmane Sonko li mu def diine santaane wu ko. Mm-hmm. te nee comme day jaay ay aay yu muy tare ak ay kii yu muy tari dafa waroon a waxaale xaddis bi nga xam tari na ko nii doon nee na. na nga jéggi fi juma ba mu des jumaa ji ak ji lim na ba muy ñett noo gisee discours am beeg li mu wax Ousmane. waaw bu dee xaddis boobu moom am na ndax jëf ji Ousmane def ak xaddis bi moo méngoo loolu la ñuy réglé. ah mais xaddis bi lu am la gàddaay ci juma ngir juma yonent wax na ci jumaawam su ma ne. Mm-hmm. jumaawam nag mooy. madinatul munawwara mm-hmm. ak makka baytul maqaddas mm-hmm. léegi nag est-ce que dafa demoon di julli ji juma wala dafa demoon di ziyaare ji waaw Ousmane moom bu ñu déggee ci ñi ñi doon wax dafa demoon pour ziyaare ji waaw léegi léegi ajjuma jooju ñaata nit jullee ci juma jooju yow sooy bu Touba ñaata yoon nga fa julli juma jouru màggal ah, wax nga ñaata yoon leen julli juma Tiwaawoon jouru màggal wax nga dëgg de jouru gàmm wax nga dëgg de ñooñu dañoo gàmm ji juma fekk leen fa ñu julli juma nga dem di ziyaare ji juma fekk la fa nga julli ji juma Mhm. loolu amul benn lien ak li xadis bi doon wax. amul benn lien mhm. kii dafa gàddaay yi fii ngir dem ci jàkk ci lu dul benn illa mhm. mu jaral ko mu jógee fii dem ba France. ngir julli ji ñëwaat. waaw te romb ay jumaa yoo xam ne amul benn sikk bu mu mën a wax ci ñoom lu tax mu jégg leen amu fa. kooku la yonent di waxal. mais ki nga xam ne am nay am di jàmm ami wëllëre ami soppe mu dem di leen seeti. mu tombeek àjjuma mu dem julliwaale fa juma loolu loolu bu doon loolu ña fa jullee juma keroog boo leen xaajoon ci digg bi xaaj ba bu ñu am juma parce ñi ci ëpp lañ jógee ñi jógee Thiès lan moo tax mu taamu ko ci moom kenn hmm. te ñi fa jullee keroog ni ñu bare lu tax julleem kese kese moo war a yàqu julli ñi ci des du ñu yàqu te ñooñu jógee ay dëkk hmm. kon loolu règlement de compte laa ko jàpp règlement de compte ah, kon waxam ji daal nga jàpp ni règlement benn adversaire politique buy wax ak adversaire politique am. d'accord loolu rek la mais amul benn lien ak diine. macha jàpp naa ne sax polémique bi ci amoon ci doo fi jullee juma dañ fiy jullee juma sooy bi juma kenn du ko tere. vraiment waaw ah, juma kenn wa anna al masajida lillah. fala tad'u ma la ahad. walaay walaay sëriñ si tamit yooyu foog ñu bàyyi ci xel. Mm-hmm. diine ji kenn mënu koo yàq ko du nitu diine ma wax la ko. Hmm? waaw Cheikh Omar ko wax nee na nitu diine dong moo mën a yàq diine ji donte nag pour mu yàq ko foog mu complot ay nitu nguur. ma afsada diinu si wal muluuki wal ulamaa ussuui bil ufuuki d'accord nee na diine ji dara yàqu ko lu dul borom xam-xam yi ak nitu nguur yi d'accord waaw ñu def ci attention jërëjëf euh, imam euh, Babacar Sylla ci mhm. waxtaan wu am solo bi mi ngi mel ni mhm. yegg nañu sënkam euh, ci waxtu wi mhm. looy tàggoo ba bii di ñëw waaw li may tàggoo daal mooy ñu jaajëfal la jaajëfal waa groupe solution yëpp rafetlu jataay bi ak thème yu am solo yi ngeen di développé te gis naa ne sénégalais yaa ngi ciy gis seen bopp bu baax. yal na yàlla sàmm leen te yëkkati liggéey bi amiin incha allah jërëjëf imam Babacar Sylla jërëjëf mbokk yi ñu doon déglu di ñu bàyyi xel ñu ngi gërëm waa l'équipe Takku Show ñoo fi ñëwoon léegi ci kanam dégg ngeen leen noonu altine ba àllarba incha allah Takku Show mi ngi amee euh, file ci solution info gannaaw ba ñu gërëm imam Babacar Sylla moom tamit ci taxawaay Modou Diouf moo nekkoon ci réalisation bi euh, Abdou euh, Top moo doon monté waaye Ablaye Diallo moo woon lépp lu jëm ci wàllu son jox leen dig daje ba altine jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa America.